asalaamualeykum euh, li xew tey Kédougou ca Tomboronkoto dafa laaj ñu taxaw ci villageois yi dëkk ci Tomboronkoto dañu yewu société PMC ñew ne dañuy def ay sondage pour xam ndax fofu amna or villageois yi opposé wu ci ñu dem indi gendarmerie gendarmerie song leen dal ci sen kaw sanni fa ay grenade lakk fa ci bilan provisoire Fou qui n'est qu'un homme et une femme. D'après Fou qui n'est qu'un Parce que l'or qui est un homme et une femme, il est un homme et une Aussi paradoxal que cela puisse paraître. D'ailleurs, Fiti Sénégal, 19 000 kilos et 200. Le nous guérirait en or et en 19 200 kilos d'or mom lañu génné daw kédu xam nga ñaata la ci gouvernement du Sénégal am ci ay taxes 203 milliards tout ça c'est wax waxu euh, rapport ITE la 19 200 kilos d'or boko jëlé liggéey ko xam nga or moy garantie khalis or bobu boko affiné défar ko or bobu mën nga lever ci marché financier yi lu 6 000 milliards 6 000 milliards c'est le budget bu Sénégal ñu génne l'or, ci or ca Kédougou Sénégalais Sénégal yi oru Kédougou fu dem ci ay ñan qui permettre ñi ñu suñu ay autorité Mako même problème la population bu Mako jakarlo ak force de l'ordre yi jakarlo ak société yi nga xamné ño nek fofu ndax dañu mëna continuer suñu or ñukoy jël diko jox ay tubab ñuy dem bitim réew di ci ñu ñun Sénégal ñu nek ci torox wa waa koto ño yey bañ pourquoi parce que buñu leen gisé or fofu ca koto dëkk bobu ñu nek buñu leen yëkëté dañuy exploiter or bi te ñom ñafa duñu ci am fistine xolal

ba ñu dal ci kaw waa Tombarokoto dal ci seeni néeg xoolal ñu dëkk ci or maanaam fu ñu dëkk ñoom or la mais seen ay néegu ñax ñoom ci ay néegu ñax lañu dëkk xanaa kon nga gis ne pauvreté or boobu ñuy wax ci Kédougou pauvreté la indi biir Kédougou te loolu kenn waralu ko lu mooy ñi ñu jiite alal bi nekk Kédougou alal bi nekk Sénégal oriental mun na dundal sénégalais bu nekk def ci suñuy poos def teranga ci ñun ñëpp bañu gëna am teranga ku nekk la mu mënoon mu gën ko mën mais ñi ñu jité ño bon ñi ñu jité ño xalaatul sénégalais yi ñi ñu jité sen bop dong mo leen intéressé lolu la ko te tay xey ji di xex sénégalais bu nekk war nga am lu la metti kon ñi ñu jité en premier le président Macky Sall waron nga dem dug bi moy ñetti yoon nga repousser ko parce que xam nga li lay xaar Kédougou sa mandat mu ngi jeex waaye xamal ne sénégalais yi bàyyi nañu xel ci alalu réew mi te alalu réew mi sénégalais yi la war a jëriñ waaye warul jëriñ ñi nga xam ne ñoom ñooy ay tubaab ñuy ñëw di jël suñu alal di ko yóbbu ci seen réew kon jot na sénégalais yi taxaw jël seen avenir en main